kon lépp rek amateur yi lépp rek dañ ñëwandoo. xam nga def mu dindi mu def nga dindi. xam nga tey am na ñoo xam ne tuusu Ama wala tuusu Modou Lo am na xam ne sotteeku Ama wala sotteeku Modou Lo am na ñoo xam ne Modou Lo daw moom la ñuy ñëw am na xam ne Ama daw. xam nga digg géew mooy dernière chose moo mujj mujj mujj mujj su ma moom. côté mhm. xeex bi am na ñu ne suñu yoroon Ama Baldé dañ ko xeexloo ak Modou mhm. ndax Ama Baldé gëm na loolu. non gëw ma ko fa. Ama Baldé ndax takk fi tam xeex ak Modou Lô. luy takk fi. di jëf njàmbaat ni nga defoon sa combat ak Malick Niang sa combat ak ñu ne da lay duma nga ñëw cokkaas ko nax ko daan ko mais est-ce que Modou Lô tey Ama Baldé dina takk fi tam ak moom mu dóor mu fay nga dóor mu fay. mais man boo gisee làmb ma naan ku daax bëri ku daax xeex parce que tey bugguma nit pour ma nit waroo wax sa bopp dangay bàyyi nit ñi jëfal gisal sa bopp moo tax tey sama séantir yu bëree bëri doo gis may xasante doo gis may yuuxu doo gis may def dara parce jàpp ne lu coow lu bëri bëri bëri ma adversaire bi ñooy daje xam na kon ma concentré wu sama adversaire moo ëpp solo yu bëree bëri may nekk di ko def yooyu moo tax may yombal naa ku dàq bëri ku dàq xeex yàlla na la yàlla may. mais pare ah, lépp laa ardo yéen ñaar ñëpp dem ardo moom Modou dafa ñëw pour duma ma man pare na non dafa ñëw pour bëri parce que tamit bëri bi am na ñu jàpp sax am na sens. non dafa ñëw pour duma ma. ok waaye man pare naa pour mu ñëw duma ma. pare nga pour mu dumal. pour mu ñëw duma man pare na pour mu ñëw dumal wala pare. maanaam daw ma si dara boobu. daw ma boobu mu ñëw xeexa man daw ma ko. te su la nga fayu. ah da ko dóor fayoo tas. loolu de dóor ngeen ko wax. Mhm. nga ni penc woon ba fayu amee la tas. moo nag moom dana comme xam nga ko moo xam naa loo xam naa day ñëw pour xeex. bëre bi. Mhm. am na ñu ne moo peut-être gars yi xam na xam na ni koo xamul mënoo ko mënoo ko dara te tamit du ma taxaw ne man maa dàq bëre ñëpp waaye man xam naa lu ma yor wóor na man xam naa lu ma yor na léegi nag ku mu neex nag analyser tamit da nga koy da nangul ñëpp man dama lay nangul sa xel. Mhm. nangul grand bi xelam nangul sama xel tey Modou Lo koo gis nga xam ne champion bu mag a mag la xam na dama ko koy bu baax a baax man naa doon nan dañ ne Ama munul dara waaye man xam naa ne le treize yàlla na kàtt na ma suturaal. mais Ama Mbaye combat bi dafa ko jël bi ngay ñëw rek maa maa ngi ko wax ak ngay nekkee di waxtaan ak paa yi man leen dafa firi. Hmm. Ama dafa liggéey ba sentir doole. Hmm. mosul yëg ci moom. Hmm. wala ma dafa am ñoo xamante ne yàgg nañ ko deelu mosul dañ ci làmb. ñu dee ko ci combat bi loo xamante ne ci loolu la sukkandiku rek ba jàpp day daan non xëy trois ans yi ma toog bëri moo tax na fàtte ama waaye tey chaque signature nii laay def lu ma sentir ak lu ma lu loo xam ne dal na sama xel laay waxee. tey parce que dañ doon xaar tey Ama ah, mm-hmm. ñoom am ci. boo xoolee boo xoolee man bu ma dawee muuloo lu mu yàgg yàgg damay dajanteeg moom suñu ñaar koor day daje. par la force lu ma ko daw daw daw daw daw arbitre day kon tey loolu boo xamee rek kon dara warulaa sonal pour man. gis nañ tamit adversaire yi nga xamante ne ñoom nga yàgg bëri la. arbitre bi koo ci dox ci kawam koo ci massa dox ci kawam rek arrière soo daxee ci kaw Modou Lo mu dëggal boppam. mu dëggal mu dëggal boppam. Mhm. bañ a arrière. Mhm. ah ma dem seeti rek làmb moo xam na war la. làmb war la rek <laughs> du ma ne maa doon jàmbaar du ma ne man maa gën a kii waaye man lu man lu luñ ma bu baax baax xam naa ko xam naa lu ma préparé baax personnellement man rek man rek personnellement avant lamb avant trois heures combat avant Modou man rek. man rek dama yàgg bëgg Modou Lo. donc bëgg si moom. kon lu ma la wax ku ma dóor tamit maa lay ko gee. waaw mais nit mais la gis ay points faibles am dara laal nañ ba pat. laal nañ mbapat xam naa ko. mais la waaw prix dib loolu la ñu wax xaw ma la. waaw loolu la ñu wax prix dib la. dafa ma. waaw mais le treize am na parce que xale boobu moo liggéeyaat xale boobu moo dem àndaat ay mbokkam. xale boobu moo ñëw prouvé xale boobu moo ñëw kenn may ko loxo. xale boobu moo ñëw dëggal boppam xam na xam nga tey fii moom ku la neex wax rek. waaye tey dama ne na doo xool koo xam ne da lay kalaat na koy may saas amul. dina fexe ba def def def ba du egsi. waaye damaa egsi. da nga egsi. Hmm? war xam nga na xam moom dañuy barrage di barrage di barrage. waaye dañuy dem ba egsi kon lu may wax ne suba nay dee jarul biddanti. pourtant hmm. hmm. ko tegalee ne ko suba biddanti lu mu yàgg yàgg boo yeewoo da dee. mais nag duggoon na Pikine am na fa def lu doy waar képp seen reer ama ama gars yi dañuy dañuy jaawal naan daan na sama grand man personnel dañ bañ ma fàttee. daan na la waaw. maa am bële personnel. waaw xam na problème ko kon lu mu mënta am rek. personnel man daan na ma. comprendre kon man damay jël sama revanche boobu. jëm jëlal sama revanche grand samay xarit xam na. pikin xam na dafa nekk chose yu bëree bëri yoo xam ne lu si la dafa bëree bëri. mais soo soo su fekkee da nga jël revanche moom tamit day jël revanche am dëgg la waaye dafa am loo xam ne bii mooy daj dëpp bi xam boo dégg ñu naan la teg jeexal bii moo nekk teg jeexal combat bi moom day toog na fii ni combat bi dafa diis ci yéen waaw moom peut-être mun na wax loolu parce lu ma ne la mun wax loolu parce que sama adversaire naa la wax dina damay wax si moom lu baax parce que lu xam si moom lu ma jot xam si moom laay wax moom tamit lu mu jot a xam si man rek lay wax comprendre moom bu waxee loolu moom xelam la waxee man dama koy nangu bàyyi kaa xelam waaye man lu ma jàpp xam naa ko. Hmm. yan sparring partenaire nga am yooyu contact benn instant bi parce que moom gis nañ ne am na ku mel ni Garga 2 am na ku mel ni Franc am na ku mel ni Gora Sock ba Basso te ñooñu yéen a yem même hmm. nga xamante ne yaa ngi jàppante ak ñoom instant bii nii. maa ngi Zoka Balde. Eh. maa ngi Pokola. maa non non maa maa nekk Ousseynou Mané. ñooñu ñooy nga maa ñëpp waaw. ñooñu kenn ngay kontaan. ñoom laay kontaan ah. waaw mais peut-être man arrangé na ma xam nga làmb bu nekk bu la arrangé boo yooyu ñoo ma arrangé làmb bi wax dëgg yàlla lépp lu si war rek ñoo koy def ak man. Hmm. Hmm. waaw waaw loolu danañ ci ñëw ku hmm. nañ ni. waaw combat doon na la ma gënoon bëgg parce boo Bébé Diène dafa am souvenir boo xam da def si làmb bi sax boo xam ne bugguma sax di wax waxu Bébé dama koy la rek yàlla na ko suñu boroom defal jàmm parce que mun naa la wax am na temps yoo xam ni feebar naa fi moom moo jël matuwaay si man yu bëree bëri gën maa bëgg làmb bi. du wax waaw bu ñuy dox si làmb bu ñuy wax ba nu muy amee problème man maa ngi doon dem këram pour xoole ko comprendre kon dama koy ñaan yàlla na ko yàlla defal jàmm. di ñaan rek yàlla ko jeunesse bi ñëpp teg loxo parce que amul ku dul si àdduna. su ma juumul a mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. yàlla ko suñu borom defal jàmm lépp luñ koy toppee rek yàlla na. bu baax a baax bu baax a baax di ko ñaan yàlla na ko yàlla defal jàmm. do départ bi def nañ lépp franchement départ bi doon nañ contact doon nañ dem saal doon nañ dem ngoon si géej yooyu yëpp wax dëgg yàlla franchement. Mm-hmm. macha allah yal na ko yàlla taxaw. wallaaw génn la nga xamante ne fa la nekk moom mm-hmm. nga ci toll fan dem après da nga koy woo. dem àll waaw avec Oya man maay dem. <laughs> waaw yow yaa dem moom fa dem. ñooy <laughs> ànd fii mu maa la franchement. mais combat bi est-ce que dana ci am solo trop parce que gis nañu sa adversaire moom mais léegi moom affaire yi rek mooy jël à la légère kon nu ma ko jëlee rek. yow jëloo ko à la légère la gisoo bi ma ko jëlee wax dëgg yàlla. ndax lii yow yi moom ay morceaux yi bu ñëwee moom doo def dara day ñëw. waaw man de sama sama loxo rek ko ma takk. fan yii dama doon box sama loxo bu métti. ban importance la am na si importance moom wax dëgg yàlla franchement si moom bokkul loo xam ne am na importance bu baax a baax. ñooñu si daal ànd suñu mbokk bu baax a baax samay bokk yaay samay mbokk papa. waaw Mawlo su ñëw takkul dara nag ñëw ngemoo ngemoo mu weexam. Mhm. ah xëppoo suuf géejam. Mhm. ñëw jàkkaarloo yow. waaw moom lu mu gëm la indi moom loolu la gëm man tamit lu ma gëm rek laa indi. Mhm. soo ma doon kii lan la yaakaar sax ba war a jàkkaarloo parce que loolu naa nekk de loolu su amee bu mu mais lépp xamal da nga lépp mën a nekk sa fi yàlla dee wala xam na. Mhm. te tamit sa adversaire dañuy préparer lépp. comprendre mais bu ñëwee moom lu mu gëm loolu la gëm. man tamit lu ma gëm laa indi ku nekk rek loo gëm. xam na xam na coow li bëri na xam na ñu naan ah, diw ibaadu laa diw kii la ñun ñëpp ñoo bokk fa yàlla. parce que day julli di seelal nit ñi di julli di sellal comprendre du ko ñaanal xam na waxul nit ñi day dégg doxul nit ñi day mu jàpp foofu la mm. parce que tamit nit ku nekk boo doon jur na yàlla da lay xiir si yàlla suñu borom du ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm xam na ok fi may jeexal ak yow Ama mm-hmm. euh, bi que Ama Baldé mu wër Pikine ak lu ko wër wala mu dajale ay président fan sa wax leen li nga xamante moom la arène nationale ba laaj bëree ci jàmm ak salaam moo la xalal ko mu dugg si ñu bëri ci jàmm ak salaam. Mhm. sans violence. waaw loolu la ñuy ñaan yàlla wax dëgg yàlla loolu la ñuy ñaan yàlla parce que boo xoolee dafa metti maanaam tuuma bi dafa dal suñu kaw kon ñun ñoo war a veiller lu bëree bëri mhm. ñoo ñooñu siy waxtaan ak gars yi xam na ko koo xam ne Ama Baldé la indi mu yéen a yaakaar ne Ama Baldé la indi rek. Mhm. nu la nu Ama Baldé waxee Ama Baldé mu jëfee doxee ko leneen nag bu fekkee Ama indiwu la kooku moom sa problème la. ñëpp ci jàmm nga a. waaw ñëpp ci jàmm laa muy supporter mu looy muy supporter baax parce que am na yoo xam ne sax boo koy def dafa mel ni yow wóolootoo sa mbër wala woo sa mbër wala am looy tiit tiit sa hmm. xam nga kon lu ma rek duma gu loo xam na nañ taaral bis bi nañ ko jox lu mu moom nañ ko respecté ba mu ñëw si digg géew leneen lu si des nag maa ngi mën loo digg géew. looy tuus. gintee ci ren noo ci yokk. ginte gën a war a <laughs> ginte gàtt na de ginte gàtt de. bis bu yore ba ma ko mën sa a andi. moo ginte ci rek ndaw xam nga ginte lu nekk si lalu. waaw kontaan naa ci yow bu baax.